assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen samay mbokki jullit gannaaw ba ma sante borom bi tabaraka wa taala julli cib yonentam sallallahu alayhi wa sallam maa ngi dellu rekk di ñaan yàlla sunu borom mu saxal ñu ci siraatal mustaqim jéggal ñu mboolem sunuy bàkkaar defal ñu jàmmi àdduna defal ñu jàmmi yowmal qiyaamati waaye nag yàlla na ko yàlla defal mboolem jullit yéen samay mbokk tey jii day maa ngi fàttali am mbir moo xam ni du ñàkk ñu bari ci ñun danañu ko sax xam waaye nag booy fàttali dañuy fàttali lépp su ko defee ku ci mën a jot nga yëg ne lii day lu ma xam la tey it fàttewuma ko su boobaa dinga ko mën a jottali sa mbokk moo xam ni yaakaar nga ni xamu ko wala sax yaakaar nga ni fàtte na ko muy fàttali te fàttali saa su nekk day jariñ loolu moo tax ñu bëgg am lu ñu fàttali ku ne xam na ni ñun ay mbindeef lañ yàlla moo ñu bind léegoo leeg dañuy fàtte yàlla sunu boroom rekk moo dul fàtte rasulullahi sallallahu alayhi wa yonentab yàlla la woon doonoon jaamub yàlla képp kuy nit rasulullahi moo la gën te moom léegoo sax daf daan fàtte ñu di ko fàttali julli gi ñuy julli nag nga xam ni léegoo dina am yun ci fàtte ba am ñoo xam ne dana leen jural sax ay jafe-jafe ngir ñu mën koo defar am ci ñoo xam ne sax dañuy dagg julli tàmbaliwaat ko muy coono ci ñoom mu bëggoon nag ñu fàttali ci lu néew donte lépp sax mu ne su ko fàttali moom waaye ñu fàttali ci lu néew kem li ñuy faral di fàttali rekk ci diiru minute yu ñuy fàttali mbokk julli saa boo xamee ni maa ngi koy def ma fàtte ci sunna lépp loo xam ne sunna la ci biir julli fàtte naa ko nga xam ne dama ko wàññi wàññi naa ko ca damay sujjóot ñaari sujjóot bala may sëlmal waaye nag su fekkee dama juum yokk ca lu ci bokkul damay sujjóot ñaari sujjóot baada salaam muy après la sëlmal moo tax biñ koy jàng dañ daan wax naan wàññi xa yokku ba maanaam wàññi qabla salaam yokku baada salaam wàññi da ngay sujjóot ñaari sujjóot bala ngaa sëlmal waaye nag boo yokkee da ngay sujjóot ñaari sujjóot ginnaaw ba nga sëlmalee ba noppi donte ay woote yu bari am na ci waaye nag lii mooy li gën a siiw ma leeral ci lu néew mbokk yi tey su ma doon julli ma kabbar jàng naa faatiha alhamdulilahi rabbil alamina ba mu jeex rek ma daal di sëgg fàtte naa jàng saar saar wa topp ca faatiha fàtte naa ko ma sëgg julli julli ba ca digg ba ma ne ah man day jànguma saar bi ma jàngee faatiha ba noppi fàtte naa saar booba lu may def damay julli ba nga xam ni sama julli yépp ba ba nga xamni selmal rek mo dess ma daal di ñaari sujjoot fofa ma sujjoot fa ñaari sujjoot muy qabla salam avant le selmal suma noppi daal di sëlmal loolu mooy réparé loolee nga faté won muy ben benen ba ci top moy kabarna jang fatiha jang sar seug julli julli julli ba nga xamanteni bi def na ñaari rakka warona tok ci digg ba dal di jang taaya ma fatte taaya goga fatte na ko ma julli ñaari rakka rek au lieu ma tok ma dal di siggi directement bi ma julli waté benen rakka rek ma ah man day sama julli gi yépp toguma ci benn yoon kon dama fatte togaay ba kon su boba damay dem ba nga xani dem na ba wara selmal dal di sujjot yeneen ñaari sujjot muy qabala salam parce que da nga wañi deng ko de léegi nak, dafa am lu ñu tudde farata farata mom soko bayé kenn du ko sujootal da ngay wat rakka par exemple kabarna julli rek jang sar au lieu que ma jang alhamdullilah rabbil alamin kabarna rek daal di tàmbali benn saar te janguma fatiha ma dem ba ci digg ba ma ah man day bima kabaré xamna ni janguma fatiha numay def kon bul dag julli ka kon bu fekkee da nga nekkoon ci ñaareelu rakka na mel ni ki yaa ngi ci benn parce que bu njëkk ba valabalatul julli ga nga xam amul fatiha booba valabalatul nekkatul kon bu doon yaa ngi ci ñaareelu rakka jàppal ni yang ngi ci benn bu doon yaa ngi ci ñett jàppal ni yaa ngi ci ñaar bële bàyyi ko nga indiwaat beneen soo demee ba sëlmal ba ne assalaamu wa rahmatullah da ngay sujjoot ñaari sujjoot pour mu réparer lale xaw na compliqué nag moo tax ma di ko fàttali rek lu néew lay fàttali beneen ba ci topp mooy kàbbarna naa jàng faatiha julli naa julli julli dem ba waroon a toog daal di jóg taxaw ñu ni ma subhanallah ma xalaat ni dama waroon a toog te jóg naa te fàttali nañ ma ma dellu toogaat maanaam jóg naa ñu ni ma subhanallah ma wàcc toogaat bi ma wàccaatee toogaat wala sax ngay julli yow rek nga jóg ba mu yàgg sa xel dellu ci ne da ngaa waroon toog nga wàcc toogaat kon jóg nga toogaat kon da ngaa yokk ci julli gi kon soo demee ba sëlmal bay wax asalaamualeykum da ngay sujjoot yeneen ñaari sujjoot moo tudd baada salaam mu réparé la leen beneen bi ci topp nag mooy julli naa ñaari ràkka wala ñett ràkka julli naa ñett may sikk sàkk ma ni man ñaar laa julli wala ñett yonent yalla ba neena su boba jeelal bi gën a neena ñaar la julli wala ñatt kon na jël ñaar na melne ke ñaar la julli suma deme ba julli ba nga xani paré pare nak nag di sujjoot ñaari sujjoot ginnaw ginnaw selmal ginnaw selmal donte am nañu wax sax da ngay sujjoot avant le selmal manam sik sakana ñaar wala ñatt jeelal ñaar ñett la sik sàkk wala ñeent jëlal ñett kon saa su nekk jëlal bi gën a néew soo demee ba pare nga jot ñaari jot après le sëlmal beneen julli naa ba mu yàgg ma sujjóot benn jot rek daal di jóg taxaw fàtte fàtte naa beneen ba su ma ko fàttaliko su fekkee dama ko fàttaliko avant may jàng maanaam jóg taxaw avant may tàmbali di jàng rek sama xel dem ci da ngay wàcca wàccaatal sujjóot beneen sujjóot ba nga indi ko ba pare soo pare sujjóot baada salaam mooy après le selmal parce que jóg nga yokk nga ci loolu su fekkee nag da ngaa sujjóot benn sujjóot rek jóg taxaw rek tàmbali jàng bi nga jàngee ba mu nga ne ah man de ñaareelu yoon benn yoon rek laa kon boobu rakka supprimer ko ci julli bu ko ci booleti da ngay indi benen rakka moy mana safara lolu waye su sa jot dootu ko defal deng nga de da ngay indi benen rakka yok ko ci julli gi mu meuna remplacer lene parce que su jot ba nga bayyi ci rakka boba boba rakka vala balatul nekatul. léegi nak soo sëlmalee ba pare nga sujjoot yenen ñaari sujjoot pour pour mu réparer lolu legi nak su fekke dama kabar tisbar kabar na tisbar tisbar dama jang ci kaw wala Makabar, rek jang ci kaw tari fatiha ci kaw tari sar ci kaw dem ba ba ba ca bés pare mané man day julli gi ma julli ci kaw la ko jang te ndank la ko waron jang kon noy def kon ginaaw bi nga selmalé manam sujoot nga après le selmal ci ngay sujoot ñaari sujoot parce que da nga yok lan nga yok voix bi nga yok voix bi nga yok dang ko waron wax ci suuf nga wax ko ci kaw lool mo bu timis nga xam dama wara a jàng ca kaw ma kàbbar rek jàng ndànk di jàng ndànk ba noppi ma waaw man timis laa julli te ndànk laa jàng kon su boobaa boo ko avant julli gi di jeex bala ngaa sëlmal maanaam qabla salaam avant la sëlmal ci ngay sujjóot ñaari sujjóot léegi nag juum naa ci julli gi benn julli benn juum ma waroon a avant la sëlmal ma ko sëlmal maanaam avant la sëlmal laa war a sujjóot fàttewaat naa ko sëlmal kon su boobaa automatiquement rek sujjóotal ginnaaw bi nga sëlmalee ba pare mu réparé ko noonu la noonu noonu mbir mi demee léegi nag julli naa ci biir julli gi ma wàññi wàññi naa dara ma war a sujjóot avant la sëlmal ma demaat ba ca biir yokkaat kon wàññi naa yokk naa nu may def su boobaa damay sujjoot qabla salaam avant le sëlmal avant le sëlmal lay sujjoot kon xam naa nag lii laa doon fàttali rek di dellu di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu jéggal ñu mbooleem sunuy bàkkaar ñaan yàlla mu saxal ñu ci siraatal mustaqim defal ñu xéewaluk àdduna ak xéewaluk yowmal qiyaamati defal ko mbooleem jullit assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh